ak ak la Balla mu nekk làmb ju doy waar noonu noo ko jàngatee boobu. waaw kontaan kontaan parce que loolu day dundal làmb Balla Gaye c'est un grand champion xam nga yenn saa yi damay bëri titre yenn saa yi damay wax damay wax tubaab Balla Gaye c'est un grand champion xam nga ñu kontaan ci moom di ko bëggee xam nga Gris Bordeaux champion la waaw Gris Bordeaux sax fi mu ne amatuma droit wax ci moom dara lu rafet ndax ñun la jël. waaw dañ ko ne jàngoro yëpp a ngi mu jël Siteu moom Ama Baldé la jël moo tax ma ko commencé na comprendre nga waaw ñaaw na ba pare te gën a ñaaw Balla gay euh, bëre na bëre mag Gris Bordeaux moo jiitu Balla Gaye ci làmb d'après man li ma liir ci làmb ji Gris Bordeaux moo jiitu ci làmb mais bi ñu eggee ci biir làmb ji egg ci biir géew bi Balla Gaye moo mel ni moom moo mag Gris Bordeaux parce que Balla gay expérience la daanee Gris Bordeaux Balla Gaye moo ne bëre topp ko mu arrière ba ci saaku yi taxaw essayant yi dégg nga gëdd ko bëgg a foofu bëre bi Gris Bordeaux perte repère mbër mu mën a xeex la mbër mu mën a bëre la waaye incha allah le 5 février. mais li mu wane xam ni pël bi non bokkul man ki ma yor c' est un grand produit qui a euh, tracé tous les lutteurs des plus dangereux du monde de la lutte au Sénégal Afrique de l'Ouest kooku mooy Ama Baldé moo daan Malick Niang daan Tapha daan ñëpp ñi mu war a daan comprendre nga ñi gën a wex la daan Malick Niang bi ma koy jël di ko Amady jël di ko daan kenn daanu ko kenn ñemewu koo bëri moom Tapha dama ko door gauche droite appel ko jël tànk bi ba léegi tànk bi day metti comprendre nga ki ma jël tollootul ci làmb fuñ koy mooy tolloo adversaire. Uh-huh. làmb ji xeex nga ci bëgg wala booy ñaa. Balla Boy bu waa Pikine yëpp di pare la combat bu waa Pikine yëpp di pare la te buñ ci eggee dinañ xam ne bëgg nañ combat bi suñu combat la. mais mais nga yaakaar ndam di fa fa lay xeeñ. fan la yaa Boy Niang xale la doon tëkk Balla mën na li muy mën nag ba noppi. comprendre ma. ma ne Boy Niang xale la. waaw waaw Balla tamit li man macha allah mën na ko mais booy Niang tamit xale la. non ku ci nekk da nga am ñaari avantage ci làmb ji Balla Gaye Boy Niang ku ci nekk da nga ci am ñaari avantage Boy Niang dafa garaaw trop ci mbër mu koy ray si il est ci boo koy offensé pour bëgg ko fi jëlee da cee aay moo ko ma seen si yaa ngi dégg Balla gay tamit euh, day bëree bëre boo xamante ni boo taxawee di ko xaar bu egsee ci yow doo bëre parce que dafa am kor boo xamante ni faalewul xeexkat bu réglementaire. Balla Gaye booy xeex règlement booy bëreeg moom da ngay am problème. est-ce dégg booy ñaar dafa am légitime défense. comprendre nga kon ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga ci atu boo ne man su ma doon booy ñaar ci làmb jooju su ma ñëwee damay taxaw li yi di wax taxaw liirse bi combat bi bëri ko ni ma ko war a bëree maanaam ni mu doon bëree du ci changé dara. loolu la war a bëri waat ak Balla même réaction même attaque même recul même riposte même coup. même réaction même argument. yow foo jàngee. école Ngéwél. ban la <laughs> jàngee. maman. ban classe euh, <laughs>